هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من ضمير ما لعينيك إن قلت كفها متى وما لقلبك إن قلت صديقي لا يصلي وسلم دائما الصاحب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لولا الهوى لم تريق دما ولا طلل ولا عرقت لذكر البان والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا فكيف تنكر حبا بعدما شهد بي عليك ودور دم والسقم ولا صل وسلم أثبت الوجد خطي عبرة وضل مثل الباري على خديك ولا عنوي ولا يصلي ويسلم دائما أبدا عم صرع طيف من أوى فارقني والحب يعترض لذات بالللم ولا يصلي ويسلم دائما أبدا يا لائمي في الهوى النعدري معذرة مني إليك ولا أنسفت لم تنمي ولا sirri bi mustatirin anil wushaati wala daay alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah euh, gannaaw boo présenté woo yow yaay wax si turu jigéen yi lan mooy taxawaayu jigéen yi si association bi yàlla santaane moom la yonent bi santaane moom la Cheikh Ibrahima santaane bëgg ko te di ko joxal njabootam bi yëpp ñun nag tey moom lañ ñëw mu nekk suñu seul objectif tey ji joxe ko joxe suñu seul objectif moo nekk tey suñu première joxe tey ñu ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ba déwén incha allah mu nekk loo xam ne day kawe ñu njort ñoom nañ tey joxe ndékki si turu jigéen ñëpp si turu fitiyaanu xadara joxe ndékki di ñaan yàlla tamit mu yokk macha allah def ngeen seen première fois lan moo nekk seen kanam yéen jigéen ñi lan ngeen préparé pour beneen yoon ak yan activité ngeen di préparé. waaw activité yi moom bëri na bëri na allah bëri tey di yokk affaire yi di ñaan yàlla tamit mu yokkal na na objectif yi bëri na trop wax nañ daal jël mën a gën a bàyyi yóbbu ko fu kawe kawe bu wante donte nag na fu kawe kawe kawe mais di ñaan yàlla mu macha allah gannaaw bi ngeen taxawalee lii yéen ku bëgg bokk si association lay def. waaw ku bëgg bokk si association bi na da ñëw nga wax sox si carte jox la si carte membre yi nga bëgg mën see intégré wu chaque at ñu def allah ñu ajouté si groupe WhatsApp bi tamit aussi nga mën di daje ñu def comme ni ñu def tey jii nii ñu ànd jëmale fay dugg kanam. macha allah. képp koo xam ne bëgg naa jokkoo ak Fidiane Khadra lan lay def. waaw damay oote allah.